asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki eh, téléspectateurs yi mbokki internautes yi fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi di Sénégal wala ci bitim réew ñu ngi leen di nuyoo fii ci Daarul Minan ci buntu kër Cheikh Mouhamadul bashir Mbacke fi nga xam ne fi la xalif général des Mourides nekk di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. mbokk yi noonu lañ koy ñaanalee xalif général des Baye Fall di Serigne Amdi Fall Modou Menda moom it euh, ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak mbooleem kilifa yi dina yëpp. mbokk yi ñu toll ci wàccaayu bis bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général de Mourides moo ko santaane di bisub Zikrullah mu sant ko xalif général de Baye Fall mu ànd ko fas yéene ko ànd ak mboolem waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp waaye mboolem taalibe yëpp. bis boobu nag nekk bis bu mag boo xam ne moom la ñuy waajal ñoor ko amal fii ci Daarul Minan àllarba lay door ci bu 16h dotee dëppoog le 22 décembre 2021 ba ci alxamis ji di le 23 décembre 2021 bu 16h jotee muy 24 heures de zikar non stop maanaam benn waxtu rek wala yenn rek ci waxtu yi la ñuy arrêté zikar si muy bu waxtu julli jotee maanaam bu noddee ginnaaw bu ñu jullee ci la ñuy weelaat li nga xam ne moom moo di euh, zikar googu. loole nag laaj wàccaay wu yaatu woo xam ne moom lañ ko war a organiser fii ci mi euh, Minane ñu fas yéene dugg ci biir xool li nga xam ne noonu lañ ko nosee muy euh, retransmission en direct bi ndax bëri na ay taalibe yoo xam ne dañuy nekk ca bitim réew ñoom dañuy bëgg di xam li nga xam ne moom moo fi xew ba ci biir réew mi ñi nga xam ne mënuñoo ñëw ba Touba ñoom it bëgg di dund li nga xam ne moom moo di 24 euh, heures yooyu. moom moo tax dana am euh, équipe boo xam ne ñoom ñooy sasoow loolu fas yéene cee taxaw taxawaay bu am solo daañu dem ñu xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yore mu ñoom sëñ Abdou Karim Sagna ñu indi ci ay leeral ci naka lañ ko nosee ba ci sonorisation bi nga xam ne moom it euh, zikarulaa la zikarulaa goo xamante ni dafa war a yaatu taalibe fu ne bu ñu fa nekkee mën di ko dégg loolee nag laaj na sonorisation bu am solo loole naan laaj na nosin woo xam ne ñi ko yore incha allah daañu leen tàllal euh, suñu micro ñoom it ñu leeral ñu li nga xam ne moo jëm ci fànn googu. ba ci euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor ni nga xam ne noonu lañu ñu organiser zikar gi ndax ci biir kër gi fi nga xam ne fa bi nekk téeméeri nit lay doon ak juróom fukk yoo xam ne buñ noppee ñeneen ñoom ñoo leen di wuutu ci zikar soosu nga xam ne noonu lañ koy toftalee ba keroog quatre heures yi di mat loole it am na noo xam ne noonu lañ ko nosee loolee lépp incha allah ak ci kër gi ni nga xam ne noonu lañ ko waajee aménagement yi yu ci aajowu ak installation yi moom lañ leen fas yéenee wan ngeen xam fan la wàccaay wi toll fii ci Daarul Minan ci 24 heures zikrulaay yi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou santaane ngir Baye Fall yi ko amal. la la fa la la la la la ilaha la la la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah bismillah jërëjëf sëñ Fall ñu ngi lay ziar bu baax di ziar mboolem mbokk yi ñuy teewlu waaw ni nga ko waxee bis bi day bis bu mag boo xam ne ni ko mbokk murid yëpp xamee euh, bisu maam Cheikh moom fu ñu ko fu ñu ko wootee yaakaar naa taxawaay bi waxuma la Baye Fall waaye képp koo xam ne euh, ab murid nga képp koo xam ne jullit nga sax laay wax am nga ci taxawaay bu mag euh, léegi nag li nga xam ne mooy audiovisuel euh, taxawaay bi ñu ci am yaakaar naa taxawaay bu yaatu lay doon ndax bis bi ku ne xam na ni li fi na a daje ci mbooloo ak activités yi fi nar a am faaw ñu immortaliser ko benn fexe ëllëg ndax archive yaa fi faaw faaw ñu ñu immortaliser ko ba nga xam ne tey Euh, à tout moment mën nañ ko utiliser waat bu ñu am ba téeméeri at bu ñu xam nu mu demee woon war nañ war nañ war nañ ñoo mën a jëriñoo ci image yi. leneen li ci topp mooy euh, mbooloo mi dana bari faaw ñu organiser ko noo xam ne dinañ fexe ba li ci biir li xew ci biir kër gi ña ci penc ma ndax kër gi euh, suñu borom def na tax ko trop. li fi nar a ci mbooloo dana bari bu ñu ko woon noonu du du sotti kon dañuy fexe li xew ci biir am écran yu mag yoo xam ne danañ ko installé ci biti fexe ba ñi ne ci biti mën ko mën koy teewlu. noonu la ñuy fexe ba tamit lii xew ci biti ñi ne ci biir dinañ am ay écran yoo xam ne dinañ mën a teewlu leen lañ si mooy wàllu direct bi ndax mbokk taalibe bi fu ne lañ ci biir réew mi ci biir région yi Sénégal gépp ci bitim réew kon ñooñu ñëpp euh, am nañ pas-pasu ànd ak ñun ci liggéey moo tax euh, suñu direction générale bi nga xam ne bi nga xamee ne euh, jokkoon naag comité d'organisation bi teg nañ matuwaay yu am solo yoo xam ne dana tax équipe technique bi nga xam ne li ko dalee grande journée ba léegi ñu ngi liggéeyandoo ensemble ñi nga xam ne ñëpp ci ñu ngi yëngu ci média te nekk ci yoonu murit muy ay télévision muy ay site internet ñëpp laxasoo ay goj fexe ba euh, événement yi fi jaar yëpp ñu mm, liggéeyandoo ensemble ba fournir signal bu baax ak image yu am qualité yoo xam ne ñëpp koy bokk kon loolu lañ tegaat même chose lañ tegaat ñi nga xam ne ñoo na ci kaw jëwriñ yi ñoom sëñ Mouhamadou Lamine Diop sëñ Lamine Diouf sëñ Assane Assane Boub ak yeneen jëwriñ ñi nga xam ne yëpp euh, ñu ngi fi kon ñu ngi euh, coordonné ak mboolem équipe bi soo defee loolu lépp mën a nekk kon loolu ci ci lañ ci lañ ci euh, lañ tolloogum daal. waaw am nañ passeport su teg ñetti régi ñetti régie ndax ni ma ko waxee léegi ci biir kër gi xat na noo xam ne bu ñu ko installé wu noonu dana dana xaw a jafe moo tax ci biir fi nga xam ne fa la kuréel centrale bi nekkee foofu prévoir nañ fa benn régie centrale boo xam ne moom mooy kuréel lépp luy xew ci biir léegi nag ci biti. foofu la mbooloo mi ëppee foofu tam prévoir nañ fa yeneen ñaari régie benn bi secondaire bi moom mooy jël activités yi xew foofu ak beneen troisième boo xam ne bëgg nañ mu nekk régi bi nga xam ne mooy gérer plateau yi su ko defee muy ñetti régi incha allah bu ñu suñu borom àndee noonu lañ ko bëgg a doxalee su ko defee lépp mën ñu mën ko temps activités yi am yëpp ñu mën ko couvrir incha allah. Hmm. loolu ni ñu ko bëgg defee mooy ay écran lañ fas yéene installé ci kër yëpp ci penc am na prévoir nañ fa ñetti écran yu mag. mbaar mi nga xam ne fii la kilifa yi baay Fall yi ak yenn cheikh yi war a nekkee foofu tamit am na écran bu mag ñu fi prévoir. boo ñëwee ci saal fi ñaan salle d'attente fi nga xam ne ñi war a sikar ñi nga xam ne ñoo ci fa la ñuy fa la ñuy nekk muy salle d'attente bi foofu tam prévoir nañ fa benn écran salle appartement sëñ bi nga xam ne sëñ mag bi fa lay nekk sëñ Muntaxa foofu tam prévoir nañ ko ay écran su ko defee kër gi yëpp moom danañ fexe ba euh, installé fa fu ne écran ba nga xam ne euh, duñu soxlaw tout le temps di bëgg a dugg génn waaw direct bi incha allah loolu loolu lañ ko loolu lañ ko fas yéene incha allah bu suñu borom àndee noonu lañ ko fas kon ñi ànd ak mboolem équipe yi mboolem média yi ñëpp taxaw nañ kenn ku ne indi ci sa li nga yor ñu boole ko fas yéene benn moment daal boo xam ne dinañ am euh, flottement du am incha allah 24 heures yëpp lañ fas yéene feesal ko moom fees dellu daal incha allah. Eh, jërëjëf sëñ Fallou ci laaj bi am na solo trop léegi nag eh, ni nga xamante ni noonu lañu liggéey woon ci grande journée xasaayit bi liggéey boo xam ne bu mucc ayib la dana mën a taxaw ba. fépp fu waay nekk ci àdduna bi di nga mën a am li nga xam ne moom la ñuy ñu doon def ci bisu bisu xasaayit bi moom noonu nag lañu la ñu reconduire ci bisu mm, kii zikrulaa bi nga xam ne am nañ dispositif yoo xam ne teg nañ ko nga xam ne fépp fu waay mën a nekk ci adduna bi di nga mën a am li nga xam ni lépp mooy xaw ci biir biir biir kër gi yenn chaînes yi nga xam ne dañuy bëgg a diffuser wala chaîne télévision classique yi ñoom itam am na benn ay lien yoo xam ne mooy diffusion en direct nga xam ne mm, kii sans logo lay doon neutre lay doon dana permettre fépp fu waay mën a nekk da nga mën a diffuser ci sa plateforme ci teg sa logo nga xam ne ñëpp dañ ci mën a dana ci mën a jokkale loolu mu amee fii nag commission maanaam ñi doon ci liggéey yëpp noonu la amee ñoo xam ne dañu nekk bitim réew ànd kook ñun ci tàmbali bi ba mu jeex nga xam ne ñoom tam liggéey bi ñu séq fii di ko def noonu lañ ko doon niñ ko defoon ci niñ ko defee ci grande journée xasaay di noonu lañ ko defee waat noonu lañ ko defee waat ci grande ci journée Zikrullah bi nga xam ne waa bitim réew dinañ mën a am lien yi di ko diffuser seen i plateforme waa Sénégal ak fépp fu waay mën a nekk da mën am lien bi mën ko diffuser sa plateforme yaakaar naa ne loolu bu ñu ko defee fépp fu murit nekk ak fépp fu taalibe nekk fépp fu jullit nekk li nga xam ne xew ci Touba da ko mën a am en temps réel en en exclusivité kon yaakaar naa ne loolu la ñu teg ci dispositif ngir mën a jàppandal liggéey bi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ci ci ci àdduna bi ngir mën a suivre événement bi. Euh, sëñ Fallou waa waa fi ñu toog si waajtaay de ñu ci phase test bu mujj bi ndax fi ñu toll nii bi ñu jotee ndigal li booba léegi ñuy commencé di installé fi ñu tollagul ci installation yi daanaka fi ñu toll nii ñu ngi ci test yu mujj yi daal ndax bu dee ci biti euh, bu dee ci biti nga xam penc mi ci côté jumaa ji foofu ay ay ay opérateur fa def opérateur lan fa def yoo xam ni moom moo war penc mi. bu dee ci biir kër gi moom fi lan def ay ay ay ay kii yoo xam ni ñiy sikar. foofu ñi ngi xam ne fi si sikare pour mën a amaat retour foofu ci biir waaw fi ñu toll nag euh, daanaka ni fi ñu toll nii euh, liggéey bi ñu ngi ci fas mujj bi muy test foofu lañ ci tolloogul loolu moom incha allah jekk na ci côté yëpp. ndax euh, bu dee ci biir kër gi ci jotal digal li jotoon mooy ci bu dee ci biir kër gi yi si sikare yi ci biti nag mbooloo mu ëpp sax mooy mooy ne ci biti loolu moo taxoon ci biti gi. dafay opaleer yoo xam ni yi nga xam ne mboolem ku nekk ci biti rek loolu bu bu bu bu sëkkee ci biir di nga ko mën a dégg foo toll di nga ko mën a dégg waaw. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla baax di julli ci yonent bi di ñaanal sëñam di fal mu sëñ Modou Mbène sama borom yàggal ko baax téeral ko ba li mu bëgg liggéey maam Serap Fall lépp mu def ko ni ko soobee dañaan ko moom sàkku mbégte baax ñaanal sëñ Tuubaa Cheikh moom itam téeral di baax sëñ moom Cheikh Sirif Hassane moom maam ma ne liggéey bi ñu teg suñu loxo muy wàllum tur yàlla sëñ bi moom def na ci mat goo xam daanaka jot nañ ko leer fu bëree bëri mooy fi bëri jëmi barab bi ngeen nu fekk doo fas yéene bis bu ndamee bàgg ci bis ba itam kuréel bi fi dugg téeméer ak juróom fukk lay doon ci biir téeméer juróom fukk boobu nag ñoom saa bu nuy sikkar lay daje ci pénc ma lépp ci kuréel bi la jàpp waaye soo defee ñu nekk fi nag ñoo dëbb bi mooy téeméer juróom fukk ñoo yor dëbb bi bu nu ko waree itam ñu ne ci pénc ma di déggoog ñoom di awu saa bu téeméer juróom fukk nekkee fii itam saal bii ngeen gis téeméer juróom fukk nga fa toog ñoo xam ne ñi rek la ñuy xaar saa bu ñuy noppee rek ñooñu boy dugg ngir sëñ bi daa wax ne tur yàlla ni mu ko bëggee mooy rek mooy tax ñu taxaw waaye fii déggug nodd dañu ko wéyal ba loolu nag mooy tax yi muy laaj mooy day fekk ne saa bu nit di si kër ki ko war a ki saa bu sonnee ki am rek day fekk mu taxaw sur la place noonu la ko sëñ bi duggee ci ba barab yëpp nga xam ne moom lañu ko defee ci barab yëpp nga ne téeméer juróom fukk bi ne fii daal nanga xam ne téeméer juróom fukk dañ xaar ci ci mbaar mi ngir bu ñu nappee rek ñoo daat dugg incha allah waaw waxtu wi jël nañ caay ay matuwaay ndax kuréel bu ne bu fekkente ne ci bis bi ñu koy tàmbali la muy ba ci katéer kuréel bi ñuy wax kuréelu seexi seex rafaal yi ñoom ñoo ko jiite ñoom ah, waxtu na fekk ñoom ñëpp ñu taxaw ñoom ñoo ñoo ko wéyal suñu wéyal itam ba noppi kuréel bi ëmb waa kër sëñ bi ñoo cee topp noonu ko defee kër për kër për ay kër për kër moo xam ne ci nekk heure bi nga war a yëkkati xam nga ko waaye li yillee bis bi mooy quatre heures jooju nga nga xam ne la sëñ bi woote daanaka matuwaay mooy saa boo koo ci a soxla rek na fekk mu jàpp na ci yow nga xam ne doo génn di ko wëri te doo génn di ko xalaat fenn itam ñëpp lañ taxaw sur la place bu dee ci nga xam ne ñoo war a saytu barab bi itam wut nañ ci matuwaay yoo xam ne daanaka la war a soxla woo rek ki la ko war a jox moom mi nga taxaw sa wet jant boo waax a jub ci moom rek moom day daal dem wuti loola incha na moom lépp yem na lépp yem na wax dëgg yàlla ndax sëñ bi bi ngeen ma joxee ndigal li te Baye Fall moom ku ne xam ne ndigal rek lay déglu ñëpp dañ ko def seen yitte muy loo xam ne itam kenn ku ne daanaka yaa yaa ci gën a farlu sax ñi la koy digal ñëpp moo tax lépp ma mat na amuñ ci benn gàllankoor alhamdulilah jërëjëfati jërë ngeen jëf mbokki eh, téléspectateurs yi ñuy seetaan fu ngeen mën di nekk ñoo ko déggandoo muy kàddu yu am solo yi nga xam ne eh, kilifa yi ŋànk lenn ci liggéey bi ak eh, organisation bi ak aménagement yi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci kër Cheikh Mouhamadul Bachir gii nekkee ci Daaral Minane fi nga xam ne fi la ñuy amalee zikrullah gi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér moom la santaane ñu fas yéene ko ànd ak mbooleem waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi waaye mbooleem taalibi yëpp ndax bërëb bi niñ ko waxee sànq rek dana nekk bërëb boo xam ne euh, dana bëri nit lool moom moo tax ñu organiser ko wala ñu nosee ko noo xam ne lépp danañ ko defee ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee ñu ñaan rek dajee seek tawféexu sëriñ bi Euh, ñu leen di fàttali lañ nekk mbooleem li nga xam ne moom moo fi am muy 24 heures yi du 22 à partir de 16 heures muy 22 décembre ba le 23 décembre jeudi ba 16 heures jot ba keroog ñuy ñaan danañ ko retransmettre en direct ci mbooleem chaîne yi nga xam ne ay chaîne murid lañ ak site internet yi nga xam ne ay taalibe ñoom ñoo ko yor ak keneen koo xam ne bëgg na ko retransmettre en direct ndax nosee nañ ko noo xam ne danañ génn ay lien yoo xam ne képp ku fi nekk ci biir Sénégal nga bëgg diffuser en direct wala ci bitim réew bu ñu la yónnee li nga xam ne moom moo di lien yooyu danga nga ko mën a diffuser fépp foo mën di nekk santaat leen bu baax a baax gërëm leen ñaanalaat Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou mu yàgg fi loolu tànd ak wér ñaanal ko Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Menda moom it xalifa général des Baye Fall ñaanal ko mu yàgg fi loolu tànd ak wér ba liggéeyub euh, maamam ji di maam Cheikh Ibrahima Fall mu àggale ko foo xam ne fu kawe kawe lay doon ànd kook mboolem taalibe yi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf